de wéy Moi, premièrement la démission nous ñi nga que ni laale nañu ci mbir que ñu démettre leen de leurs fonctions le plus vite Et amul ay ñeu fi di naan ay dage rek ah. bu dem ba ci ministre ba ci kenen ak nañu ko démettre de ses fonctions c'est une exigence du peuple sénégalais deuxième ponku bi moy nañu fexé ñi loubal bi nga na dem ci askan wi ci mbirum Covid ñu ko gaaw tamit exigence bu forte bu peuple sénégalais suñuy milliards du bi cour def ci l'ouverture d'une information judiciaire bu oppositions opposition politique la bu activiste la bu nous ñun sénégalais nous nga nous ni léeg-léeg ginaar rek la gao. justice bi day daal di gaaw la justice donc ouverture de 12 informations judiciaires au moins et enfin libérer Mamadou voilà et pour terminer gagner loolu pour que peuple mu xamni ni bi war ñu ngi koy def il faut pas que ñom ñu def ko ci seeni biir rek il faut que ça se passe en toute transparence il faut que mo am comité bi nga xamanteni ñen ñenn ñi saytu est-ce ñu ngi def li war est-ce nangu ngeen ko ja ngeen jëf loolu la indi won ci ay ponku li premier acte la deglu len ci fan yi di ñew inshallah comment voilà inshallah fan yi di ñëw dinañ defaat conférence de presse pour wax leen xeex bi fi mu jëm fii ak exigence yi état bi satisfaire ko bu soobee yàlla duñ ko bàyyi fii ak libéré wuñu prisonniers yi duñ ko bàyyi ñu ngi leen di ñaan pancarte yi ngeen bàyyi ko fi ndax dinañ ko soxlawaat képp ku yoroon pancarte na ko fi bàyyi dinañ ko jël dinañ ko soxlawaat jaa ngeen jëf di jë boo amee hymne national du Sénégal